métti la bokk ñoom waaw booy xool groupe espoir bi daanaka moo fi tane loolu la tey ngeen bi moom bii la ay eh, c'est fait gis nga papis li ma la doon wax sànq c'est fait but de l'ASC Teranga ci temps additionnel yi dans les temps additionnels je t'avais dit que naataange bu ñu li nga xam ne moom la ñu am Teranga allait le faire et il a réussi l'exploit dont je disais tantôt là maintenant, il revient maintenant à l'ASC Natangé de tout faire pour réduire le score, pour revenir à leur score. Et ça va être très difficile. J'espère et je dirais que l'ASC Teranga ne va pas accepter que l'ASC Natangé égalise. Oui, taxaw di ko xaar àndul ak moom ci départ moo tax des fois ci match euh, euh, concentration bi dafa war nekk ci jour bi pendant 90 minutes coup de sifflet bi rek mooy tax nga génnaat ci loolu. bi muy démarré fii man maa ngi bëgg daw maa ngi bëgg a daw parce que départu attaquant bi muy démarré man fii ma dépar maa ngi daw mais moom gisul sax attaquant bi parce que ce qui veut dire que ne bàyyiwul sax xel jàpp na ne nee nañ ko deux minutes jeex na rek jeex na.